mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu xarajtu yowma sabti saamina asar li xidmatil muxtaari fii saxri safar mbokk yi bis maa ngoog tukki baa ngoog fa tabaarakallahu bisu cant gaa ngoog su ngeen déggee nag bayit woowu xam ni woote sëriñ bi yegsi na fa tabaarakallahu bis bi mu génnoon fas yéenee dem ci tukkeem boo am solo boobu nga xamante ni moo ne indil ndam lislaam lii waaye indil nu sërité bu rëy bii nga xamante ni fa tabaarakallaahu moom la waxoon ni ijaxar rujuux yi ilaa qawmi sahadatana wal takfina yowma jami xalqi niraana mbokk yi mi ngi noonu mbokki prestige waaye Thiès prestige nag fas yéenee ànd ak yéen diirub fa tabaarakallaahu première safar gis ngeen ko fa tabaarakallaahu Thiès Prestige fa tabaarakallaahu mi ngi noonu matinal bi nga xamante ni saa bu nu xëyee danañ ko ànd ak yéen diiru première safar ba léegi. fa séenee ànd ak nag li des ci màggal gi fii ci Touba fukki fan yi ñu ngi fii ci màggal gi fa tabarakallahu tàmbali ko fii ak juróom-ñetti fan yi ñu ànd ko ak yéen mboolem li nga xamante ni daan ngeen ko bàyyi xel Thiès Prestige muy matinal yi fa tabarakallahu muy journal yi ngeen daan jàpp fii ci Prestige muy xibaar yi nga xamante ni daan ngeen ko kar ci Prestige ñu ngi fii ci dëkk bi nga xamante ni mooy Touba fa tabarakallahu li ci màggal gi ak koo xamante ni yaa ngi bàyyi xel Thiès Prestige rek ñu ngi lay dox dig daje fii ci Touba incha allahu rabi fa seen amal nag ay plateau yu yànji yu am solo yoo xamante ni rek loolu incha allahu rabi ñu ngi leen ciy jox dig daje kon ñu leen jox rendez-vous rek yéen bokk yi nga xam yéen a ngi bàyyi xel Thiès Prestige ci màggalug Sëñ Touba gi nga xamante ni rek fa tabarakallahu moom la ñu nekk ñu ngi fii ci jumaay Serigne Touba ji di leen jox rendez-vous ci yeneen i jataay ak yeneen i plateau i xibaar wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh